salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV bu ngeen gisee toogaay bi ngeen xam ne am na lu ko waral lan moo ko waral muy màggalu ko Serigne Touba gi nga xam ne moom la murit yépp di waajal moo rëcc dënn yi mu war a tombeek fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ah, bu ngeen gisee ki ñu toogal ñu gën ko xam ci Serigne Moustapha Lo ñu fas yéene def ak moom waxtaan. ci ñaari tomb lu jëm ci ana lan mooy màggal gi ak lan moo waral sababu màggal gi ak ab murit lan mooy meloom ci màggal gi beneen bi ci toppit mooy ki nga xam ne moom la ñuy màggalal ana lan la liggéeyal suñu borom ci zaar ci li nit ñi gis ah, ba suñu borom teg ci loxoom màggal gi màggal gu toll nii ah, nga xam ne foo mën di dem ci àdduna bi ñu ngi koy màggal kon bu ko defee rek du ñu def lu du di jox Serigne Moustapha Lo mu nuyu ak mbooloo mi ñu door a commencé waxtaan wi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aoudu billahi bismillahi inna waliyallah wa ma tawfiqiya illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani nawir janaani safi amaani wa barayi Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi dellu nuyu mbokki Touba Argentine TV euh, di jiital ci nuyoo bi suñ jor ñi ñu dalal suñu asan euh, ñu ngi lay nuyu te di la ziyaara di lay nuyu ñi nga àndal liggéey bi njiitul sëñ Gora Seck ak mboole ñi nga xam ne ni ñoo bokk nekk ci kër gi di ci liggéey di rafet lu baax a baax seenum liggéey ndaxit it euh, ñi ngi topp liggéey yi ngeen liggéey yëpp wax dëgg yàlla ñi ngeen dalal waxtaan yi ngi ci yi ngeen yi ngeen def yëpp ñu ngi koy dalal ñu ngi koy dalal wax dëgg loo xam ne ni luy jariñ euh, mbindeef yi moom ngeen génne ci génne ci kër gi di sant yàlla baax nag ba ngeen ñu dalalee ci kër gi boole ñu ñi nga xam ne ni yaakaar ngeen ne mën nañoo wax lu am njariñ Euh, jëmale ko ci ñi nga xam te ni ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñooy ñooy topp waxtaan yi nga xam ne moom la ñu def ci ci biir kër gi muy Touba Argentine TV euh, di ñaan yàlla suñu borom mu dimbali ñu rek ba euh, ubbi sunum xel ci barke Serigne Touba bi nga xam ne moom la ñuy waajal waxtaanee ci bisam bii mooy bisum màggal Touba ba nga xam ne dañ fi wax loo xam ne ni dana bari njëriñ nit ñi jukkee ko ci sëñ bi. wax lu mën a jëriñ nit ñi jëme ko ci jëme ko ci nit ñi ci bis ci bisam bi nga xam ne mooy bisub 18 18 18 safar kon daal euh, loolu la ñuy ubbee waxtaan di ko tàmbalee te di gën a feddali sunu cant sunu cant bu baax baax te ñaan yàlla sunu borom dimbali ñu ban àgg ci ak jàmm. jërëjëf Serigne Moustapha ci nuyoo bi am solo bi nga xam ne nuyu nga ko mbokki taalibe yu ñuy seetaan mbokki jullit yi ah, euh, du ñu def rek lu dul fas yéene jox Serigne Moustapha mu indi indil ñu ay jukki. ci dundub seexul xadim sëriñ Touba yaakaari jaam ni ana lan moo doon ab dundam ana lan la sëriñ Touba saxoon eh, ba wuyu suñu boroom foofee mu nekk noone fa Touba ñu war faa woote ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. waaw eh, kon suñ Assane laaj nga laaj bu am am solo. laaj nga laaj bu am am solo ndax dañ naan wala fii dañuy wax ne lu yëngu la ko yëngale ko ëpp doole te yëngatu màggalu màggalu tubaa ku ne xam na ab tolluwaayam ci àdduna fépp àdduna bépp da ca gën a Tuubaa rek ngay nekk doo nga xam euh, yëngatu gi wala wattaay yi nga xam ne ni ñaa ngi koy waajal bis bi nga xam ne ni mooy bu bisu 18 safar li ko waral nag euh, jëmm ji nga xam ne ni moo wootee ñu santale ko yàlla euh, ci bis boobu. bis boobu bis boobu mu woote ñu sant la ko yàlla da cee gën bis boo xam te ni it bis ba nga xam te ni moom la ko moom moom moom la moom la moom la amee ndam ca la ca la ca la mu doon liggéey ca la ca la ca lay woote eh, sant waaye day woote cant gi. ci bis ba nga xam ne ni moom la tàmbaloon liggéey bi xam nga lu doy waar a waar a lu doy waar a ngi noonu <laughs> eh, lu doy waar a ngi noonu eh, te du cee gën a sax murid yi fi ni yëngutu gi àggul ñu dem ba ci bis ba ba ci bis ba ñuy doog a màggal bis bi waaye ñoom dañu jàpp ne weeru safar lépp rek ak màgg ak màggal la waaye nag Sëñ Tuubaa moo moo jëlul 18 safar rek def ko muy bisu màggal gi waaye moom weeru safar la fonk la la fonk la fonkoon rek wax na ci bindam yi bare bare euh, way ay bay di bare bare yoo xam ne nii da koy wax di ko indi ci safar na ci bay di yoo xam ne mi nga naan li yow a habta ya ilahi fii safar jumlatama minka uhibbu da safar euh, yow yàlla suñu borom may nga ma ci safar mm-hmm. lépp lu ma buggoon ci yow yow suñu borom rek may nga ma ko ci safar yow suñu borom lépp lu ma bëggoon ci yow rek may nga ma ko ci safar lépp lu mu doon sàkk ci suñu rek suñu borom may na ko suñ ci weeru safar eh, ci ci moom lay firndeel ci ci ci ci ci bayit woowu naan li wahabta yaa ilaahi fii safar jumlatan wa min ka uhibbu za safar waaye moom eh, suñ ci lu mu saxoon. ak it yan tawféex la amoon. ba mën a mën a attan liggéey ba nga xam te ni moom la ko suñu moom moom moom la ko suñu borom yan yanoon tam tam jafe woon wala yu bare bare ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu yanu ko. mooy dafa fexe ba li nga xam te ni xam fa mu jëm xanaa nit ki da ngay xam da ngay xam fa nga fa fa fa nga fa nga jëm. te it euh, dafa am dimbalu suñu borom waaye nag moom bu weesoo dimbalu suñu borom jom ji nga xam te ni yàlla taw fi xale ko ak fit wi ak bëgg bëgg lim lim lim lim doon wut tax na moo am ci taw taw fex ju kawe ju kawe njort euh, mi ngi wax ci mbindam ne madaytu billahi bila tawaqufi wa aiqi anhaahu rabbi bi qifi madaytu mooy jug naa ne coow jug naa ne coow koo xam ne da jóg di dem te fa jëm nga ànd ci ak euh, ak ak ak te duma taxaw. di dem te doo taxaw moom yaakaar naa <laughs> euh, sëñ Tuubaa la ko yàlla la ko yàlla la ko yàlla tawfeexale bi laa bi laa fi maanaam maa ngi jëm jëm maa ngi jóg jëm ci yàlla. ne coow laa jëm laa def jëm jëm ci yàlla te duma ma te ma taxaw bi laa tawaqquf fi du ma mas taxaw. xam nga nit ki da ngay jaamu yàlla ba yàgg sax nga taxaw am ay eh, pausa yooyu def yoo xam ne da ngay dal daa nañ waxtu yi defoo defoo ci dara suñu tubaab loolu loolu dalu ko dalu ko ci yëpp da ko da ko ko da ko eh, nekk ci yàlla ak lu ko jëmale da ko lu ko jëmale ci yàlla waaye nag tawfiq ji am mooy suñu borom da ko tawfiqale mu li mu wax waa iqi anhaahu rabbi bi xif lépp loo xam ci ne ndox na sama digganteeg nara a sama dox boobu walla mu nar a arrêté sama dox boobu rek yàlla da ko lépp lu ma nar a gàll gàllankoor ci dox boobu rek suñu borom da ko da da ko da ko da ko lu ma nar a gàllankoor ci dox ci dox ci dox boobu suñu da ko da da bokk na ci lii gàllankoor ab dox. seytaane seytaane dafa am doon ku yàlla kàttanal kàttan goo xam ne nii. ñu bari bi njigooy jëm ci jëm ci yàlla suñu borom moom moo moo moo gàllankoor seenu ndox ba ba yéexal ko wala wala mu far ko sax dog ba xam ci ni euh, ndox boobu ak euh, doon ndox ak agul waaye yàlla da ko musal ci seytaane ba nga xam ne seytaane moom ab liggéeyam amu ci amu ci amu ci amu ci cër nu ne fi xel nag fi xel na ko nag am kuy dugg ci yàlla euh, euh, ku jëm ci yàlla te yàlla seytaane fexe fexe lu amul. Mm-hmm. seytaane fexeel na ko dugg na ci biir liggéeyam waaye mënalu ko mënalu ko dara. Euh, bokk na ci li koy firndeel bay du mu wax ne dahaba iblisu li xayri baakiya wa naadiban min makrihi wa shakiya. dahaba iblisu li xayri baakiya seytaan damaa jug. di ma wut si lu ne mu fexeel ma ko yàqal ba yàgg mu mu wëlbati ko dem wan ma ginnaaw dem waaye boole ko ci boole ko ci dem waaye dafa dem boole ko ko jooy xam na ko lay wutal ba yàgg muy muy mu wëlbati ko dem dem dem di dem yaram boole ko boole ko ko jooy xam na ne lam lam doon lam doon wut euh, amu ko waaye ñu ngi jéggalu hmm. faaw ñu dagg la foofu hmm. ndax day lu am solo hmm. gis na ne eh, gëstu nga téere yu baree baree bari mhm. waaye téere yi nga gëstu yëpp mhm. eh, ci borom xam-xam yi ban borom xam-xam moo mës bind ne suñu borom musal na ma ci seytaane <laughs> wala musal na ma ci iblis ba mucc ci iblis wala seytaane <laughs> waaw loolu de ndeysaan eh, ci Sëñ Tuubaa laa ko laa laa laa ko gis Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa laa gis loo xam ne moom te moom waxu ko benn yoon waxu ko ñaari yoon am mbindam bàmm na ko ci ay yooni yooni yooni yooni yooni yooni waaw ba noppi am eh, ministre yàlla yëpp nag am euh, yàlla mën naa la musal seytaane waaye nga am fitu wax ko wax ko euh, publiquement ba ñëpp xam ba ba ñëpp dégg dégg ko te di foo dara loo xam te ni day wane ne seytaane seytaane am na am na na ci cër loolu Sëñ Tuubaa la koy la koy la euh, boo gisee li mu li mu wax nii firndeel la ko seytaane damaa wut si jima jima fexeel la mu doon fexeel dara sottiwu ca mu wëlbati ko di dem di jooy ma ngay dem di jooy waaye booliwu ci yëmu ci jooy kese waaye ma nga wanaa di man ba caa boole di riccu lu mu doon ñëwee ci ñëwee ci man di ma di ma di ma di ma di ma yàqal. wanaa ne man ñu nakkari yi pexe moom ñëwoon di ñëw di ko di ko di ko pexe di ko fexe fexe di ma yàqal sama di ko di ko di ko di ko di ko rëcc di jàmbat boole ko di di di di di jàmbat. waaw seytaane day day jàpp day day moom ma luti ko wan Sëñ Tuubaa ginnaaw da ko booleeg jàmbat waaye nag moom Sëñ Tuubaa xam na ne ku yàlla dimbali la yàlla ci boppam mi mi bëgg mu am li mu am moo ko musal ci seytaane sos moo tax mu ne axsax zul arshi zul arshi al azim yow ma mil yow ma wa an yu di mu saw ma yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy borom arsh euh, moo ko gàccal mm-hmm. gàccal nag buñ ko buñ ko waxee mooy <laughs> la nga doon wuti gàcce gàcce gàcce fekk la moo tax Iblis bi mu wëlbati ko di di di di moo waral jo jo jooy ya mm-hmm. ak réccu lam lam lam doon wuti Sëñ Tuubaa ak njàm njàm njàm njàmbat ga. waaye gàcc ga nga xam te ni maam waxuma la nga dem di di fexeel nit bëgg ko yàqal mënoo ko yàqal waaye jëlee ci jë jëlee ci gàcce loolu <laughs> beneen beneen affaire la. moo tax mu ne axadahu zul arshil azim al yawma wa an janabi yudimu sawma Euh, sama sama côté moom da seytaan daf daf daf cee woor léegi daf cee woor woor nag mooy loo xam ne nii bàyyi na la carrément ku woor da ngay lekk bay na ku ku seytaane woor ci sa ci sa ci sa côté mooy bay na la fexe bàyyi na la bàyyi na la bàyyi na la fexe bàyyi na la fexel euh, loolu Sëñ Tuubaa moo ko wax public ma euh, muy wax ju ju doy ju doy ju doy ju daw yaram ju daw yaram waaye nag Sëñ Tuubaa bokk na ci li nga xam ne nii yàlla tawfeexal na ko mm-hmm. mooy euh, li nga xam te ni euh, doomu adama boo xam ci ni bu normal la bu nekk war nga koo làmbal ci ak yiw mhm. ak na lu baax ak jom ak it jël suñu borom bi nga xam ne moo la tax moo la tax a jóg nga ne nga ne nga ne nga ne nga ne nga ne ko jàkk euh, li may li may li ma li may lay firndeel wax jo wax jooju mhm. dafa wax ci aw bayit ne yan wil fuaad yan wi fuaadil xayra yadkuru lisaan wa yaabudul badana rabbi bil xisaan yan wil fuaadil xayra sama xol bi day aw yiw lay yéen ndax jëf ju nekk yéene koy lal te jëf ju yéen a lal day yombal jëf ja mu ne sama xol bi yéen a ju rafet ak yéene lu yéene wi aw yiw la ëmb waaye nag yadkuru lisaan mhm. sama làmmiñ wi day tudd yàlla fu mu toll wa yaabudul badana wa yaabudul badanu rabbi bil xasan sama yaram wi it fu ma toll day jaamu yàlla ci jëf yu rafet ya waaw loolu waxee suñu tubaab joo xam te ni kon euh, lu am am solo la kon jëmm ji mooy euh, moo yor tolluwaay toll tolluwaay bi kii lañ jëm ci kii lañ jëm jëm jëm jëm ci bis jëm ci bisam mu woote bis boo xam te nii day ci woo mbooleem euh, koo xam te nii ak bëggam mooy sag bëgg euh, ñu sant la ko ci ñu sant ñu sant ñu sant ñu sant ñu sant ko ñu sant ci yàlla. sëñ Moustapha. Mm. sëñ Tuubaa. Mm-hmm. boo ñuy wax. tolluwaayam ci mm-hmm. góor yàlla yi. maanaam mm-hmm. lan nga lan nga ñuy wax ci Sëriñ Tuubaa. Ah, euh, euh, waaw euh, góor yàlla mm-hmm. xam nga góor yàlla yi moom lañuy ñu wooye ahlu zawu toqa ñi way ragal yàlla yi. waaye. tolluwaayu Sëriñ Tuubaa xam ko weesuwul nga nga jàng bay di mu naan darajat yi kaw nii xadiman muntaxaa wa bi baax yi abadan zawut tuqaa maanaam sama sama sama garaat man Sëriñ Tuubaa mooy nekk gi ma nekk di liggéeyal yonent yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye nag wa bi yu baax yi abadan zawut tuqaa nee na gaa yi ragal yàlla yi gaa yi ragal yàlla yi ba nga xam nangul nañ nangul nañ seen seen seen ragal yàlla nga xam ñoom seen ragal yàlla mooy moo leen yóbbu fan fan fa fan fan nekk moo waral ñu doon góor yi góor ñu leen wooyee góor yàlla yi ñooñu dañuy dañuy dañuy puukare woo Sëñ Tuubaa ñoom. wa bi yu baax yi abadan zawu tuqaa waxul ma la dañ koy puukare ci benn moment bàyyi ko waaye faw ba faw ba faw ba faw la ci Sëñ Tuubaa bi yu baax yi abadan zawu tuqaa tolluwaayu Sëñ ci biir góor góor yooyu bokk na ci li koy firnde it waxi Sëñ Tuubaa jim naan yajidu nii inda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaan yabtadir bayit wu am am solo la loo xam ne eh, li ci a neex mooy da koo tëggee ci ci aayab alxuraan. wala maanaam mu nekk mu nekk ci alxuraan innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir waxi suñu borom la ci alxuraan ci suurat mujj suuratul xamar suñ tubaa ne yajiduni inda malikin muqtadir kullu waliyin yi jinaan yabtadir nee na wàllu yi njëkkantiwu di xelaw jëm ci suñu borom boo àggee nag moo fi fekk. <laughs> loolu mooy wax naa euh, wax wax wax wax jooju. Euh, wàccuwaayu Sëñ Tuubaa ci biir nit yàlla yooyu suñu asan euh, danañ ci indi li tax ñu baax ñëpp bëgg ko. ñu baax ñëpp bëgg ko Sëñ Tuubaa ñu baax ñëpp ko bëgg. Mm-hmm. ñu baax ñëpp ko bëgg ci malaaka yi. Mm-hmm. ñu baax ñëpp ko bëgg ci jinne yi. Mhm. ñu baax ñëpp ko bëgg ci doomu aadama yi. ku xool sab xol bëgg Sëñ Tuubaa ci rek na xam ne kon <laughs> yow euh, na xoolaat yow yaay kan yow yaay kan daal. waaw euh, liy firndeel wax jooju mooy euh, bëy di yoo xam ne ñetti bëri yu yu tegaloo la danañ ko indi benn bu nekk nga xam ne firndeel lay firndeel lay doon ci wax ji ñuy wax. dane yuhibbuni li wajhi rabbiyal mu'id bi xayri buxdin abadan kullu said kullu said kullu said mooy képp ku taxe képp koo xam ci ni nar ngaa taxe ëllëg ngir da ma bëgg ngir jëm yàlla yuxibu ni li wajhi rabbi al muid bi abadan kullu said nee na ngir jëm yàlla ji mm-hmm. képp koo xam ci ni nar ngaa taxe rek ëllëg da nga ma bëgg te doo bañ ba bañ ba faaw Euh, mu teg ci ne yuhibbu nii malaa'iku rahmaani euh, astaghfirullah dane yuhibbu nii malaaikul baaqil karim li wajhihi maa falaaxin laa yarim malaaikul baaqil karim mhm. malaaka yi suñu borom yu euh, mi nga xam ne moo fi des suñu borom mu tedd moom mhm. dañ dañ bëgg nañ bëgg nañ bëgg nañ Sëñ Tuubaa bëgg nañ Sëñ Tuubaa ngir ngir jëmbi yàlla ah ñoom <laughs> bëgg nañ Sëriñ Tuubaa ngir jëm ngir ngir ngir ngir ngir jëm ngir jëm ngir jëm yàlla kon lañ naan lim lim njëkkoon wax euh, feeñ feeñ na ci wax jooju lim naan nag euh, yuhibbu ne euh, li wajhi rabbiyal mu'id bi ghayri bughdin abadan kullu sa'id képp ku nar a taxee bu ëllëgee da nga ma bëgg ngir jëm ngir jëm yàlla. waaye mu teg ci ne malaayku malaayikul baaxil karam yi bëgg nañ ma ngir jëm yàlla moom moom nga xam ne ko ma bëgg ci ma ci ma ci ma war a bëgg mu teg ci. ne xad waddani man amanu fil jinni li wajhi baaqin kaana li bil man xad waddani sopp nañ ma sopp sopp na ma sopp na ma kan moo ma sopp man amanu man amanu min man amanu fil jinni ñi gëm yàlla ci jinne yi sopp nañu man man man man Sëñ Tuubaa xad waddani man amanu fil jinni li wajhi baaqin kaana li bil man ngir jëmmi yàlla mi nga xam te ni moom moo moo moo moo moo moo defal moo defal xewal. xam nga ko foofu kon wax jaa ngi toftaloo ne ne képp koo xam te ni da ngaa nar a taxee bëgg ngir yàlla wax ne malaayikul baaqil karim bëgg nañ ko ngir jëmmi yàlla. Eh, ñi gëm yàlla ci jinne yi sopp nañ ko ngir jëm ngir ngir ngir jëm ngir jëm ngir jëm ngir jëm yàlla. Euh, kon loolu mun a weesu wane wàccuwaayu Sëriñ Tuubaa ci biir ci biir ci ci ci ci ci biir ci biir ci biir ci biir góor góor yàlla yi. Mhm. Euh, jeneen wax ju am solo. yoo mhm. xam te ni euh, ab soññe la yoo xam te ni ndeysaan taalib yi nga xam te nii ñoo gën a fees ci ñuy waajal màggal gi. ci lay daanaka ci la ci la jëm mm-hmm. nga xam ne ku ko ku ko waxi Sëñ Tuubaa la waaye bépp tali boo xam ne yow sax aju Sëñ Tuubaa wér na boo déggee wax ji euh, noo waajaloon noo noo waajaloon màggal rek da nga da nga ko xeeb kon bu ko defee mbokk yi ñuy seetaan rek euh, dégg jukki am solo yi nga xam ne Serigne Moustapha jukki na ko fi ah, mu jëm ci kan mooy Serigne Touba ak tolluwaayu Serigne Touba ci góor yàlla yi mm. ah, nan la Serigne bi toll ci góor yàlla yi beneen bi ci toppit mooy dañuy ñëw ci ab murit ana nan la war a màggale ndax eh, jàng nañ benn wala fal boo xam ne si Moussa Ka mi ngi naan bàyyi leen di jël xéewal yi Bàmba indi mm. yóbbu seeni kër di fàtte Tuuba Ndindi mm, kon nag ab murit Ah, buy màggal mm. eh, lan la ko war a jaral mm. moo xam muy alalam wala dooleem mm. ci laaj bu njëkk bi ab murit ana la war a màggale ndax damay gis ñoo xam ne dañ leen di sas ci màggal yi ñu naan sas yi dafa diis wala du ñu joxe seeno sas te buñ bàyyeekoo foofa def ci leneen loo xam ne du farata lu ëpp lan leen doon laaj foofa kooku ana lan ngay wax ci moom sëñ Moustapha waaw moom day toorka la suñ laaj boobu it am na solo am na amati na solo trop sax la la la la laay wax. Euh, waaye liñ doon wax léegi euh, nga baal ma rek ma tëj li ma doon wax léegi ci ci bëgg bëgg bëgg ñi nga xam te ni bëgg nañ suñ suñ suñ Tuubaa. ndeysaan. Euh, bayit bi moo koy téye te tëjee suñ dana laanat li yàlla xulubu wal abdaanu. Mm-hmm. tuhibbu nil biidaanu wa sudaanu. laanat li yàlla xulubu yàlla nooyal na nooyalal na ma xol yi. xam nga xol benn cër la bu am am solo ci ci ci ci ci ci ci doomu aadama bi. waaye xol kese du du du du du du doomu aadama ndax bu xol xol kese du taxul taxul taxul nit a nit a nit a dund. dama li ma la jubloo wax mooy ab xol bu jógee ci ci ci ci ci ci ci ci jëmm. te nekkul fa ak yaram taxul tax ñu naan jë jë jë jëmm nga fa. Mm-hmm. ci déggin la laaj nag ndax xol da nekk ci euh, lu am am solo la ci ci doomu aadama bu xasee dee dee ci xol bi daanaka jëm jëm amatu amatu amatu fa njëriñ waaye suñu tubaab dana laanat liyal xulub yàlla nooyalal na ma xol yi ak yaram yi. tuhibbunil biidaana wa suudaana mooy ku ñuul dana ma bëgg ku baax dana ma ku ku ku ku weex dana ma bëgg. sëñ Assane boo xoolee ci jamono yu mujj yi fépp ci àddina bi. Mm-hmm. muy Euh, boo xoolee sax biir daana la ci la ci taxit bu neen biir daana. Mm-hmm. ñu weex ñi dañu bëgg waaye war Soudan ak ak nit ak nit ñuul lu tax jiitaloo Soudan Soudan gi te boo ko jiitaloo nit. Euh, du yàq dara ci ci bay ci bay di ndax bu nee ta taxit bu ni sudaana wal bidaana du yàq dara ci ci ci ci bay di te te waaye nag bidaan gi la la la jén taxit bu neen bidaana wa wa sudaana boo xoolee kon euh, bëgg Sëriñ Tuubaa gi ni mu gën ci at yu mujj yi mhm. boo xoolee ci fépp ci àdduna bi muy États-Unis wala Europe wala Amérique latin wala Chine wala foo dem ci àdduna bi rek boo gisee nit ñaa ngi gën a euh, dugg euh, bëgg si bëgg Sëñ Tuubaa mhm. da nga xam te da nga gis ni ñoo xam te ne dañ ko bëgg sax bëgg boo xam te ne duñu xamal ko ni xam-xam boo xam te ni dana war a mën a firndeel bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg googu euh, kon dañuy del si léegi ci laaj bi nga xam te ni moom nga mujj laaj naka la ab murit mën a gën war a war a waaj waajal màgg bi waaw lu am am solo la waaye nag nit ki fokk ngay seetantal chaque mhm. aju Sëñ Tuubaa Euh, mooy mooy boo ko boo boo xoolee Sëñ ba xam ko nga xool sax aju ci moom boobaa ngay doog a xam lam lam lam lam la lam la jaral. Euh, Sëñ Tuubaa da no taabat nufuusu man taallaqu biya dunya wa uxra zaaka fadlu rabbiya ñi aju ci man de xol xol ñi aju ci man xel ñi aju ci man day dal faaw. ndeysaan. dunya wa alxuraan rek la wax muy àdduna ak alaxira waaw nga déglu rek suñ suñu benn benn waxtaankat da koy faral di wax nee na murid wurut am stress suñ gànnaaw suñ gànnaaw stress la yaakaar naa boo ko boo ko boo bu ma ma ma wax ji rek lool lool lool la la la la la la may jox. ndeysaan taabat ma foofu man temps laqu bi yaa am képp koy aju man sa aju ci sa aju man wér rek am stress lay dalay dalay dalay dalay sori. waaye nag stress bi sore gi mu lay sore du tegi ne yow fii rek nga ñàkk stress moo àdduna waaye dunya wa uxra la suñu tubaab wax àdduna ak loolu nag boo xoolee boo xoolee da nga yaakaar a la war doon mu ne zaaka fadlu rabbi loolu moom mbaax suñu borom la may la doon la boo xam te ne suñu suñu borom moo ko jël rek jox jox jox ma ko may may may ma ko man suñu tubaab dellu waxaat ne taabat nufuusu man araadu nasra wa xaaba qablu man araadu xasri dane taabat nufuusu man araadu nasri wa xaaba qablu man araadu xasri xel yi xel yi ak xol yi ñi nga xam te ni euh, dañu dañ bëgg dimbali. ñëw dañu dañu dañ maa wut si man man suñu tubaab ngir lu may lu may lu may lu may dimbali ci liggéeyu suñu borom bi fu mu toll seen seen seen seen xel day day day day day dal. mooy képp koo xam ne ni yaa ngi nekk ci loo xam ne nii ci liggéey Sëriñ Tuubaa nga ko nga ko jàppe te liggéey ba dëppoo lu Sëriñ Tuubaa gërëm yaa ngi ci biir wax jooju foo toll sam xel day day dal stressé moom da da da da lay sori waaye wax xaaba xablu man araadoo xasar yi ñi nga xam te ni dañu maa bëggoon a gaw mooy dañu maa bëggoon a euh, mooy pexem tubaab yi rek la la la la ca doon wax. ñoom ñi dañoo mujj euh, sooy. Mm-hmm. wolof kukk la koy wax kukk kukk mooy di wuti dara la nga la nga doon wuti amoo amoo ko tubaab bi nag dañu wuti kukk kukk ci kukk ci Sëriñ Tuubaa mooy dañ lañ ko kon nag euh, gam naa ne kon euh, Sëriñ Tuubaa bi muy wax ci màggal gi dafa woote ñu sant la yàlla mm-hmm. sant la ko yàlla ci euh, ci ci def lu yàlla gërëm ak it Mm-hmm. am màggal gi bokk na ci li ci li ci gën a ferne li ci gën a fees kon mooy wàllum berne gi te muy loo xam ji nii maam ñi fi masa Sëñ Tuubaa ma ma ma ko tàmbale woon ndax màggal gi <laughs> Sëñ Tuubaa tàmbale woon ko 1922 ci mm-hmm. jamono yi mu fi yi mu fi nekk ah, te lam ci njëkk defit ay ay ay berne ay berne ay berne ay berne la woon teg ci nag euh, bernde yooyu ndax nit mën na ci financé loo xam ne day dem ba jéggi dayoo ba ñu tudde ko yàq. màggal gi am na yàq wala amul yàq. <laughs> waaw loolu de moom lu am solo la laaj ba am solo la maanaam la def ci màggal gi mënut doon ak yàq mënut a ak mënut a doon yàq ak ak yàq nit ki jël dara def ko ci def ko ci def ko ci màggal gi mënut a doon mënut a doon mënut a yàq. ak yàq nag mooy euh, dafa am ak anam anam anamu boppam da cee gën a bari waaye la ñuy def ci màggal gi mooy mooy yàq mooy ak yàq waaye xëy na. Euh, ak yàq beneen déggin la la la la la laaj. am na ñoo xam ne xëy na buñ buñ gisee buñ gisee ni nit ñi di waajale màggal yi nga xam da nga gis ci télé yi ñuy génnee ay gétti nag ak ay gétti xar ay nit ñi ko waajalee nu nekk nit ñi dugal waajtaay waajtaay yoo xam ne ni dañu yaakaar ne la ak ak ak ak yàq la waaye nag bis bu nekk rek la la lam lam lam lam tollal la la la la la la laaj. Eh, waaye kon eh, du ceeg ni ci anam yàqale yàq yàq yàqale yàqalee doon eh, kon loolu nga wax léegi li nga jël mu bari nga di ko def ci jaamu yàlla ak liggéeyal liggéeyal yàlla rawatina liggéey bu Sëriñ Tuubaa woote dama ne màggal màggal màggal màggal Tuubaa lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la ñu ngi ci soññu mbokk yëpp rek kon rawatina ñu nekk fii ci Argentine ak fu waay man nekkee ndax li loo loo jëf rek sabab sabab nga ko jëfal man amila salihan fa li nafsihi euh, la ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran euh, wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum euh, xeeti joxe ci wàllu wàllu wàllu yooyu suñu borom soññ na ci ay soññ yu bare bare bare ci alxu ci alxu ci alxuraan kon kon li ñuy li ñuy wax jëmale ko ci murid yi nga xam ne ñoo war a waajal màggal gi ñoo war a màggal màggal gi. loolu mhm. euh, loolu lay doon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xam ne màggal gi moom ak jaamu yàlla la jaamu yàlla nag euh, la ngay joxe. Mhm. Euh, jëma jëma jëma jëma ko ci jëma ko ci yàlla jaamu yàlla gi ci jaamu yàlla gi la bokk waaye nag du ceeg ne ci wàllu woowu lañ ko màggal lañ koy waajale nañ ko waajale ba tey it ci ci ci wane comportement li li li lislaam bëgg lépp rek ci ab jullit. ñu waajal ko maa màggal gi te li nga xam te ni maam bu bu dutoon màggal gi ci lañu war a ci lañu war a sax waaye ñu gën ci eh, kenn ku nekk gën cee seetaat sa sa bopp gën ci xoolaat sa sa sa sa tolluwaay xool na sëñ Tuubaa bëggoon murit bu nekk mel ko ci eh, mel ko wala taalibeem bu nekk bu ñu ko xoolee gis gis gis na kii taalibe sëñ Tuubaa la nga gën caa góor góorgóorlu bu baax a baax nañ ko nañ ko waajalee njàngum alxuraan mi nañ ko waajalee njàngum alxuraan mi eh, te yaatal bu baax a baax ndax Euh, Sëñ Tuubaa ku tudd alxuraan tudd Sëñ Tuubaa. ku tudd si alxuraan tudd Sëñ Tuubaa. ndax tudd mën nga ñu fi indil tuuti rek. <laughs> ci sawar lool euh, ndax euh, Sëñ Tuubaa ku tudd alxuraan tudd tudd ko dafa jël alxuraan téyel ko boppam. Euh, mën naa yaat lool. Mhm. danaa dégg sëñ Bas euh, sëñ Bachiru Xelkom waxtaan waxtaan euh, ci sëñ Saaliwu. Mhm. doon soññ nit ñi ñu gën ñu fonk alxuraan. Mhm. waaw ndeysaan ne alxuraan de xa murit bu nekk war na war na fu toll di ko di ko di ko di ko di ko jàng. bu dul dara it la sëñ Tuubaa waxoon ne laqantani yaa maaliki yaa maaliki alfaaza wa bii turaqi xisbaka alxufaasa alxuraan nit da koy jàng bay bay ci xam dara du ko mën a nit dina ko jàng bay mokkal ko waaye du ci du ci dégg du ci du ci dégg dara nit dana ci jàng ba lu yàgg yàgg te du ci am ab cër mm-hmm. waaye Sëñ Tuubaa yàlla da ko dafa jël alxuraan sako sa sako mm-hmm. sako sako maanaa maanaay maanaay maanaay alxuraan sa sa ko baati alxuraan sa baati alxuraan yi ba moom la moom la ko alxuraan alxuraan. ndeysaan. malaktanil kitaaba waxin yi bare bëri la ko wax ci biir ci biir ci ci ci biirum ci biirum bindam. kitaabu rabbi kaana li. kaana li wa kuntu lahu walillaahi bihi sakantu ndeysaan bayit bu siiw xam te ni xëy na. saa yu ku nit dikk rek mel ne di tey jii la ko Sëñ Tuubaa la ko la ko Sëñ Tuubaa doo doo doo ko bind. defal na ma. Hmm. man tamit defal naa alxuraan. Euh, kon bokk na ci li nga xam ne nii waras na ko gën a waajale màggal gi euh, mooy alxuraan ju bari bokk na ci li koy firndeel benn bi laa ci indi xafisani bi zikrihi wa xafisa bi zikrahu wa bi zaada xufasa euh, suñ tubaa moo wax bay doo xafis xafisani mhm. yàlla suñu borom watt mhm. bi zikrihi ci alxuraan wa xafisa te yàlla wattu na alxuraan wa xafisa te yàlla wattu na bii ci man Sëriñ Tuubaa zikrahu euh, euh, alxuraanam jooju yàlla dafa jël alxuraan wat yàlla damaa wattu ci alxuraan mm-hmm. jël ma wattoo ko alxuraan wattoo ko alxuraan ndax waxin waxin leer na li ma bëgg doom xafisa mm-hmm. nii bi zikrihi wa xafisa bi zikrahu waaye lu mu ci teg wa bi zaada xufasa ci man Sëriñ Tuubaa la yàlla jaarale yokk ñi ñi mokkal ñi mokkal alxuraan ñi mokkal alxuraan ak ñi koy wat wa bi zaada xufasa bayit wu neex la woon doy waar sax xam nga alxuraan sàmm la nga jàng alxuraan yéene ci dara alxuraan sàmm la yomb na waaye yow nga delloo alxuraan cër cër cër boobu ngir ngir jëmmi ngir jëmmi ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne ne fa moom la alxuraan eh, jóge yóbbul Sëñ Tuubaa nag eh, alxuraan da ko defal moom mu defal alxuraan Euh, moo tax mu andi bay bay bay wa xafisani bi dikrihi wa xafisa bi dikrahu wa bi zaada xufasa yàlla wattu na ma ci alxuraan waaye yàlla wattu na alxuraan ci man Sëriñ Tuubaa te yàlla jaaral nañ ci man man yokku ñi ñiy wattu alxuraan. ñiy wattu alxuraan ci wattu euh, ci anam gu nekk rek bu dee wattu mokkal la bu dee wattu ñi koy ñi koy ñi koy toppatoo ku gis Sénégal ak waa kër Sëriñ ñi. képp kuy wootu mbubboo suñ suñ Tuubaa fa alxuraan ak it eh, daara yi ci al eh, ca Sénégal nañ nañ nañ nañ yaatal liggéey suñ Tuubaa ci ci alxuraan lu mat a bàyyi xel la lu mat a eh, sant sant la. te lépp dañ ko delloo ci sant ko suñ Tuubaa kon nag nañ gën nañ gën a waajal màggal màggal gi ci alxuraan ak ci jàng xasaay di suñ Tuubaa yi. ci jàng xasaay di suñ yi nga xam ne lépp it weesuwul lu dul tagg yàlla. Eh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ak it ñaan waaw ah, te léegi Sëñ Tuubaa ñaan ci xasi xaside yi maam eh, yitteel na yitteel na ku ko jàng ku koy jàng ku ne ah, na ku koy kon nag eh, ñi koy jàng lu ñu gën a bari rek du du du du du daal. du doy du doy mukk. ndax suñu asan bu fekkee xëy na am na yeneen laaj yu ngeen war a kii wala. parce que daal loolu nga xam ne daal mooy li nga xam ne bàyyi woon nañ ko xel ci ci nga xam ne nii xëy na ab soññe la bu ñu doon euh, def jëmale ko ci mbokki euh, ah, jullit yëpp sax lay wax mu wax mbokki taalibe yi waaye mbokki jullit yëpp la ndax suñu waa euh, ñëpp ci man a jariñ ñëpp ci man a jariñu ba ba ñi gëmul yàlla sax dañuy dañuy dañuy jëriñu suñu tubaab kon nag képp koo xam te ni day wax laa ilaha illallah rek yàlla na la suñ yàlla na la yàlla jëriñ ci suñ ci suñ ci suñ tubaab yàlla na la yàlla jëriñ ci suñ ci suñ ci suñ jërëjëf Serigne Moustapha xëy na waxtu wi mi ngi ñuy xocc waxtaan wi moo neex lool. Mm. Eh, te ànd ak xam-xam ak pëseef lool ku dégg ni ngay waxee xam ne li nga wax mm. li ngay wax loo xam la. Mm. tey pëseef nga koy waxee hmm. euh, suñu dernier laaj rek mooy ana ngay tàggatoo ak mbokki taalibe yi hmm. ak it ñi nekk Touba Argentine ana lan nga leen di dénk ci màggal gi hmm. ba ñu demee ca màggal ga seeno melo ak seen jëfin ak seen toogin mën a nekk toogin murid saadix waaw laaj ba am solo loo xam ne ni war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax ndax fu ñu dajalee fu fu ñuy dajaloo euh, kon li may tëj rek laay wax ni maa ngi soñ maa ngi woo mbokki yi nekk ci Argentine yëpp it Euh, ci bis bi nga xam ne moom lañ moom lañ moom lañ moom lañ moom lañ dëgmal. Mhm. ñu yàlla nañ ci yàlla yóbbu yóbbu ci jàmm. te ñu defe defe ko defeen woo xam ne dinañ ci tase ngërëmal Sëñ Tuubaa te maa ngi ci rafet njort bu baax it xëy na màggal daaw gi fekkuma fi woon waaye eh, nañ ko màggale woon fu ne ci àddina bi gis nañ gis nañ gis nañ gis nañ ko fi vidéo vidéo yi mhm. bi may jógee Sénégal bi may jógee Sénégal ren rek eh, Afrique du Sud la la la la la laa jaar waaye eh, sénégalais moom fa njëkk a def loolu loolu la la ca lañ lañ ma wax seen màggal gi de moom wax dëgg yàlla tubaarkàlla foo ko gis rek tubaarkàlla kon nag loolu war naa Sëñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw kon màggal gi kon fam na meloon daaw ba foo jaar ci àddina ma ñu la ñu la ñu la koy wax màggal gi ci ñu ne mën lañ gën a rafet njort ci ne euh, mooy gën a mooy gën a mooy gën a aw yoon kon ñu ngi woo mbokk jullit yëpp rek bu ñu ci àggee melokaan waa ab murid war a am. Mm-hmm. na ko ñëpp am. ci teey. Mm-hmm. ci teey ci teey eh, la ci jiitu mooy ak teey ndax it bërëb yi demee noonu bu ñu fa bu fa dajaloo soxla nañ ak teey ak teey ak teey lool. rawatina bu ñuy jàng alxuraan jeeg xaside yi wala kuréel yi di yëkkati wala waxtaankat yi war a def waxtaan di yëkkati eh, waxtaan yoo xam ne dañ ko jëmale ci nit ñi tañ eh, tañ jël ay waxtu yooyu yàgg-yàgg yàgg ko waajal seen waxtaan yooyu ngir jukki ci loo xam ne dana mën a jariñ nit ñi hmm. buñ ci àggee kon nañ ñëpp maasee rek positif foofu ñu bàyyi ñu bàyyi ko ku toog daal bala nga nar a waxati waxi waxi caaxaan na nga gëm ne Sëñ Tuubaa nga toog nga toogal te ku ci toog ku ci toog Sëñ Tuubaa doo nekk di wax yenn yenn wax yenn yenn waxi caaxaan <laughs> ah, kon eh, yar boobu ak ak teey googu la ci ñëpp di ko xar ci ñëpp eh, du ma jeexal nag te duma leen delloo delloo delloo cant ak i ñaan yoo xam ne dañ koy jëmale ci kër gi di ñaan yàlla suñu borom gën koo yëkkati gën koo jëmale kanam te liggéey yi ngeen defee eh, yàlla suñu yàlla suñu borom gën leen ci taw defal defal defal tawfeex tawfeex waaw ah, tawfeex googu lañu lañu lañu la ñuy ñaan ci ci ci ci lépp rek yàlla nañu suñu borom kon euh, fekk tawfeex googu nga xam ne maam yàgg nañu dégg suñu saal daan ko ñaan lool euh, wala sañu ci waxe sañu sañu blaat taw baatu tawfeex nag lépp lépp lépp lépp lépp a ngi ci waaw ah, yàlla nañu ko euh, defal kon ngeen tasee ci tawfeex te bis bi ñu jëmit ñu tasee ñu tasee ci tawfeex war ko suñu tubaab jërëjëf kon mbokk yi ñu seetaan li lañ leen fi indiloon ci waxtaan euh, muy jataayu waajal màggal gi fii ci Touba Argentine ci seen télé Touba Argentine TV di jaare bu baax a baax sama mbokk yi ma nekkaloon ci caméra bi Serigne Gora Seck mbokk Gambien ñu ngi koy jaare bu baax di jaare mbokki Gambie yépp rek kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu doon seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.